internet enquête 221 point com ñu leen di nuyu ñu ñëwaat fii tey indi leen seen émission enquête sur vous comme ni ngeen koo xamee ni ñu leen ko daan waxee à chaque fois enquête 221 le chemin de l' ñu ñëw dañuy topp actualité bi coow li bëri na torop jëm ci wàllu Wally Seck ak t bi nga xamante ne moom la sol ci concert bii ñu jóge woon ci huitième de finale sénégalais bi amoon place de la nation mu amuloon ko fa bon ñu ni nag du ñu topp coow li ak fi nit ñi di waxee dañuy dem ci ay jegeñaaleem wala sax moom day jëmbali ji ñu waxtaan ak moom tey ñu ñëw seet si un sage un conseiller quelqu'un boo xamante ne dafa nekk personne morale buy ànd ak Wally Seck Sénégal yëpp xam ko muy Youssou Dieng grand Youssou ñu bàyyi la nga nuyu ak internet enquête 221 point com. waaw soxna Amina day doon euh, gannaaw ñu fay la nuyu la di la ziar di la féliciter vraiment di la encourager ci liggéey bu mucc ay bii def. Ah, di rafetlu sa ñëw euh, jaar ci site bii di enquête 221 nuyu képp kuy sénégalais rawatina képp kuy internaute tey béggee wala ngay safoo ah wala nga fasante coloré site bi vraiment ñu lay nuyu di la ziar ah di wax ñëpp bisimilah. voilà merci grand you euh, comme ni ma ko waxee ci commencement bi li ñu fi indi tey moom mooy coow li bëri na. polémique bi am ci t-shirt bi nga xamante ne moom la Wally sol keroog ci concert bi mu defoon place de la nation ci huitième de finale bi Sénégal done joué coow li bëri ci trop ñii ne t-shirt bi dafa am drapeau ñooñu nga xamante ne moom mooy benn lobby bu ëmb lépp luy kese ce soit bolom ñaari tuddi góor wala jigéen wala sax ñi nga xamante ne ay transgenre lañu parce que dañ ne lobby boo xamante ne dafa ëmb lesbiennes yi euh, homosexuels yi ak wàllu transgenre ñu ne aussi dafa def pro seen promotion ci bés Euh, dëgg la soxna Amina vraiment ñu ngi koy d' abord di jégalu jégalu la ñuy euh, ubbee suñuy kàddu ndax euh, xëy na du ñu ku mat ku war a wax ci loolu wala ku mat ku sénégalais yi wala xaar ci ci ci déglu la ah wala ku mat ci leeral donc. dañuy jégalu di wax ne vraiment mbir day am fu muy toll nag wax ci wax ci dafay dafay dafay am solo. ndax olof dañuy wax loo xam-xam demba ma demb gën laa gën laa xam demba muy loo xam ne nag wax fa dëgg yàlla du du du lu ñu xaar ah du du du loo xamante ni euh, lu jaroonu coow la sax ndax mbir bu amee nit ku ne da ngay wax sa axulaay taalaa da ngay wax te te yàlla tax ndax ak lu mun a am. xëy na mun nañu nax nit ñi quoi mais yàlla kenn mënu ko nax yàlla moo ñu tiim ay sénégalais lañu dëkk ci dëkk bi dëkk ku fa juddoo rek am fa cër sénégalais lañu euh, juddoo ci dëkk bi yaroo fi màggee fi wax fa dëgg yàlla nekkuñu ci dara lu ñàkk fayda wala dara lu manqué wala dara loo xamante ni ku ko gis xeeb la ci donc euh, suñu droit de citoyen ñi ngi ci ah yàlla dogal nag ñuy ànd ak benn artist bu tudd Wally Seck mais balaa dara Euh, il faut nit ñi xam ne euh, Wally ànduñook moom ci ci ci lu ko neex ñun xëy na du ñu ay kilifa sax wala du ñu ay mag yu ñu yu ñu war a wekk peut-être amul problème mais Wally ñu waaw c'est c'est bien euh, que nga préciser foofu parce que soo xoolee coow li li si ëpp nit ñi dañuy wax ne Wally Seck ñi muy àndal concerné wu ko. waaw waaw seen xalaat la rek. mais ñun Wally Wally yabuñu parce que euh, am na loo xamante ni du ñun du sénégalais du ñun donc bu ci Wally jëmee mais duñ ko duñ ko seetaan ah loolu dafay wane rek nii li am boo yedd da ngay yedd ku tey def li mu def bon ñu ñu ñu ñu ñëw ci t-shirt bi xam nga t-shirt bi euh, wax dafay yenu maanaa ñu ngi wax Wally dafa sol marku góor jigéen c'est pas vrai euh, Wally t-shirt la sol t-shirt bi marque bi Converse la Converse ku ne xam nga ko marque la boo xamante ni wax fa dëgg yàlla marque euh, ci tenue sportif la ñu gën di di di yëngu ku ne xam na All Star euh, Wally mi ngi jëndee t-shirt bi Foot Locker donc ku ci wax <laughs> da ngay wax lu la neex. kuy jënd t-shirt dem jëndee ko foot la ka mais c'est parce que da dem foot la ka du du magasin góor jigéen foot la ka magasin sport la bi nga demee di ko jënd foot la ka fekkoo ko ci rayon homosexuel da nga ko fekk ci rayon homme ñu exposé ko waale t-shirt la sol solul fànt solul euh, dessous solul ndoket solul tay baas t-shirt t-shirt la sol t-shirt boo xamante ni wax fa dëgg yàlla ku ko gis mu taxaw nga gis ne kii t-shirt la sol ak jean. voilà xam nga yu polémique bi nekkul ci t-shirt forme bi. Mm-hmm. en tant que tel. Mm-hmm. mais polémique bi mi ngi nekk ci contenu t-shirt bi parce que li waral coow yi dañ ne. Euh, t-shirt bi c'est vrai que marque Converse la. Ah. wante dafa am drapeau lobby boobu. waaw mais drapeau lobby bi c'est pas forcément xam ko lobby bi dañu adapté euh, li ci ne c'est les couleurs de l'arc-en-ciel. gay pride nag ñoo dem jël drapeau boobu nga xamante ni couleurul arc ñu def ko ñoom seen drapeau ok loolu mais du force ñëpp xam ko Amina wax fa dëgg yàlla euh, c'est que c'est juste pour expliquer ne bu fekkee ne conseil yi dañu gis waale mu sol t-shirt ñu gis ci t-shirt bi mu mu mu que ne t-shirt la sol yaakaar naa ne le respon la responsabilité de de de conseiller dafay dafay tuxu parce que nit ki solul dara loo xamante ni wax fa dëgg yàlla euh, euh, yàq na xel wala mu mu mu mu lëndaxal mu mu mu mu lën mu lëndëmal ko ba nga war ci mën a def conseil. voilà xam nga xam nga yu nga baal ma dagguma la foofu buñ ne c'est pas forcé que Wally xam ko parce que dañ ne drapeau bi biñ ko jëlee euh, lobby boobu di lobby lesbienne gay bisexuel ak transgenre. bi ñu jëlee dra euh, couleur arc yooyu def ko seen drapeau ça date de 1978. <laughs> taxul nit nit xam ko am na du force nit ñi xam ko xam bu la intéressé wul mbiru góor jigéen man intéressé wu ma lijjantiwuma ko xaw ma xaw ma seen i lijjantiwuma ko xaw ma seen drapeau waali mun na ko bañ a xam waali n'est pas forcé à à xam lépp comprendre nga ba pare euh, euh, couleur yi il faut que nit ñi xam ne lu ñu adapté la. xam nga bu doon lu ñu créé la nga ne góor jigéen ñi ñoo crée l' arc-en-ciel mais arc-en-ciel yàlla la yàlla moo ko créé muy lu naturel loo xamante ni da nga koy gis li mu signifié nag wala li li nga xam ne moom lañ ko moom lañ ko euh, euh, euh, toftalee ba tax ñoom ñu jël ko def ko seen logo loolu leneen la. waa xam nga Youssou si je je si ma defal la benn rappel mooy gis nga le mot ñun Sénégal xale bi doog a judd sax boo ko ne dessinel ma arc-en-ciel benn demi cercle la lay dessinel boo xamante ne dafay am ay couleurs yu différent bu jublu couleur mais tey xam nga quand on parle de drapeau mm-hmm. drapeau tout d'abord avant les couleurs dafa am forme forme bu carré mm-hmm. ak couleurs yi ni nga xamante ne noonu la ñu nu mu tuddati noonu la ñu tegloowee mm-hmm. euh, comment dire ni ko tubaab bi di waxee la successivité des la successivité des couleurs donc drapeau c'est tey boo duggee def recherche yi dem Wikipédia wala Google dañ lay indil ni mu mel ci t-shirt bi noonu la mel. léegi euh, euh, Amina euh, du lu am rek nit ñëpp xam. drapeau bi du pride gay pride du nation du état du lu ñuy jàngale école. comme lan moo war a tax nit xam ko. mais lu tax kon su coow jugee. jëm si seen ñoom ñëpp xam ko parce que tey boo xoolee li gën a fësal coow li ñu bëri nee nañu bés boobu dafa yemook ñoom ñu doon féete seen journée de fierté. loolu ñu ko wax de xanaa ñoom ñoom ñooy dañuy lijjanti loolu ñoom ñoo ko xam ñun xam nga xam nga waal yi amul jotu di lijjanti li li li jigéen yi di féete wala ñu koy célébrer suñu yoon nekku ci bu fekkoon ne xanaa waal amul amul amul waal pour te dire. le mot publicité sax boo jëloon si t-shirt bii du ko ko jox pour mu publicité la sax mais du ko du ko du ko sol ci gratuitement waxuma laak mu dem ba jënd ko bu ba jënd amee rek la la la nga war a xam ne nit ki dafa dem di jënd te li muy jënd moom moom couleur yi mu gis li ko attiré ci t-shirt bi bu mu jënd ko moom moo ko xam mais lu wóor bu wóor mooy euh, tayu ko defu ko pour tooñ defu ko pour Euh, support defu ko pour jàppale kii que ce soit loolu ku koy wax wax fa dëgg yàlla yaa ngi wax loo xamul Wally acte acte acte acte góor mënut a euh, am na lu ci jiitu mooy mooy mooy nangoo liggéey gor góor yor kër. di doomu jullit di doomu jullit dëkk ci dëkk bi ñu xam ko fii ñi fi góor jigéen xam nañ leen ñu ko doonul xam nañ leen wax fa dëgg yàlla. waa xam nga Youssou loolu da coow loolu dafay bëgg yàgg par rapport ak euh, euh, jëm ci waal yi parce que bi si njëkkoon mooy bi muy doog a débuté carrière ci problème mu code vestimentaire am lañ doon waxee ni mu doon solo ñu jekki-jekki ba si yàgg mu wàññi ko. Mm-hmm. ñu dem ba ci biir. anniversaire am gars yi gisaat ay photo yoo xamante ne dafa jël gâteau am keneen ku mu ko sexal. dafa jël. gâteau waaw ki mu ko soxal xam nga kan la Papis Ndiaye. je le connais waaw léegi. voilà non dama lay dama lay relater lay fay yi fi jaar. non du ay fait lu nit ñi def la. lu nit ñi créé def ko ci xelu nit ñi. waaw mais xam nga même bu ñu ko créé aussi ils l'ont ils l'ont confirmé avec le fait. déedéet dañu waali anniversaire avril la le 27 avril mu am année boo xamante ni. datum datu juddoom dafa tombé muy préparer anniversaire am Grand Théâtre c'était pas fii on a l'habitude de fêter les les les anniversaires euh, yu artistes yi les week bu fekkee ne dajewul ak week bi dañuy xool samedi bu bu ci jiitu wala bu bu ci topp ñu ñu fêter ko anniversaire bi c'est pour accueillir nit ñi ak ak def la fête ak ak ak sa public bi waal di def anniversaire am bu fekk mu nekk en séance de répétition penc mi nekk ak musiciens yi répétition ay jigéen nekk fa ay góor a fa nekk mais yaayam fekk ko fa ak ak jabaram indil ko cadeau indil ko gâteau. ok mu mu dagg gâteau bi saxal Papis Ndiaye. Papis Ndiaye fi la dëkk ci dëkk bi. ok wax fa dëgg yàlla. ok ñu wane Wally mu nekk ci piscine. ak ay góor. waaw mais góor yooyu ñan la. Wally ci piscine ak Lamine Naar mu koy dëgg ak bi ak waa Ramadan bu doon dafa di góor yi ñu xamul ñu ne ñu ne Wally dafa dem nekk ak ay góor mais nga xool kanam ñu Wally nekkal ci biir waa mais. ñun ñuy góor man bu may dem géej ay góor lay àndal. ok ba tey nañu ñu ñëw ci coowal sac bi. waaw loolu juste après coowal sac bi moom moo ci topp. waaw bi gis nga coow nañ ko mu ñëw def. benn concert dagg sac bi. après récemment mu am benn benn benn benn yére bu mu sol boo xamante ne concert u Ngaaka Blindé la demoon sol ko euh, yére bu nekk yoo xamante ne. transparent transparent. peut xam nga xam nga tamit euh, Youssou xalaatoo leen ni li waral coow li mooy fii Sénégal góor ñi dañu am code vestimentaire boo xam ne ñoom dañ lañ ko xamale. waaye ma ne Amina xanaa ñu yem ci mbubb yi ñuy xotti di ko ñawlu ca tailleur ba bu ñu yemee foofu euh, nit ñi mun na sol loo xamante ni peut-être da nga naan lii c'est sénégalais mais fii mode toll Amina. non boo génnee ci mbedd mi xam ne nit ñi mode la ñuy sol. waa mais attends bu dee nag danga nekk un porteur de voix. nekk nit koo xamante ne tu es au devant de la scène. am ñuy rey si yow. ak fu mode mën a toll est ce que yow aussi doo xalaat balaa ngaa songu mode xaar xool est ce que du am impact par rapport ak ñuy rey ci man. non non xam nga xam nga xam nga euh, nit ki mooy li may expliquer xam nga nit lu muy def te tey ko loo xam da koy def pour pour pour eh je loolu mun nga ko attaquer nit lu muy def vraiment mu leer la ne yabaate la ci jublu ak tooñ mun nga mun nga ko mun nga ko blâmer mais feeling nit kuy dem di jënd yëreem mais dafa am ci ci ci magasin boo mën di dugg ci àdduna dañ lay wax homme femme enfant yow nga dem ci homme gis fa lu lu lu la neex nga jënd ko mais mais yëre góor nga jënd mais ña defar yére ba ñooñu peut-être ñoo puissant ba ba ba ba yóbbu modd foo xamante ni peut-être modd newu fa woon mais du du waali desinewul créé wul lu muy lu muy jënd lu muy jënd fañ koy jaayee day dem fekk fa ay moroomu góoram ku ne di ko jënd xam nga tey t-shirt bi bu doon benn Amina moo ko sol dox si mhm. mbedd bi du am impact. <laughs> kon bu doon benn Roger kon nag dafa am lu muy nuru. bu doon benn Roger moo ko sol dox si mbedd bi du am impact. mais kon dafa am lu muy nuru. nit ki ko sol fi mu toll ak fi ko nit ñi di gis. mais nit ku ko sol bu doon dafay yebaate. bu doon bu léegi góor jigéen bu doon dañuy waale pour mu pour mu solal leen yére ci RTS bi lañ ko koy fayee. ci concert bii lañ ko koy. da nga a ah, dama ne góor góor ah, mais at parce que parce que tey nag gis naa gis naa attends je te dis une chose euh, bàyyi ma wax la gis naa. Uh-huh. Euh, ma Matar Gueye bu Jamra. Uh-huh. invité nañ ko ci benn télé de la place. Uh-huh. mu ni tey ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo war loon coow li. muy lobby boobu. seetaan nañu vidéo bi. ba ni sant nañu Wally Seck gërëm ko. ah bon wax na waaw ma ne. waaye yow ma ne. ba nee na sax mën na indi comme preuve des captures d'image. waaw mais capture capture d'image ku mu neex nga capturer sa image waaye ku ne xam na ne Wally Seck ay waay kon day kon day kon xanaa euh, Sénégal metti na xam nga <laughs> nit ñi nañu nañu wax ci ci lu ñu nit ñi lekk nañu wax ci xale yi ñuy jël leen yóbbu nañu wax ci xale yi ñuy sàkku Amina Amina nañu wax ci lu lu ñëpp amee jàmm lu ñu war a wax ci réew mi bëri na. xiif gée ngi kenn waxu ci ñii di wax ak kaa seen kër yi boo fa duggee xiifuñu maruñu wax fa dëgg yàlla waali xale la buy lu di liggéey lu mu am mu ngi koy bokk ak ñi nga xamante ni yàlla boole na ko ak ñoom gis nga dama ne ñun waxuma sax waali papaam ak yaayam sori nañu ñun man Youssou Dieng waali yabuma waali bu bu bu duggoon ci ci caaxaan wala ngóor jigéen wala yëfi ñàkk fayda dina ci wéet amina ñun ci dëkk bi lañ dëkk juddoo fi yaroo fi màggee fi suñuy waajur ñu xam leen ñu xam ñu wax fa dëgg yàlla bu ñuy dugg di tukki ñu ne gor yi ñooy ànd dugg dem tukki fi ñuy dal nit ñi xam nañ waale fu mu jëm day boppam waale bu bu bu sinab ñaa sax am na ñu koy bañ te xamuñu ne bëgg wane ne nekkul ci dara lu muy nëbb rek moo tax muy ànd ak ñaa barki dem ba ba muy dem màkk am nañu kiri lax waale dem màkk di ak ànd ak ñaa bu demoon moom kese koon xanaa tuuma bi gën a gën a gën a gën a ñaay. ah non maa ko tuumaam. ah ah déet mu taxul mu mucc de. waale muccul ci lenn c'est parce que ces affaires marchent et c'est le Sénégal Sénégal moo bindoo noonu moom daal booy toog ci pa ci angle bi ci borom kafe ga ñu la fay romb ku ku romb pee la doo dégg dara waaye feek affaire yi mi ngi dox yàlla di di barkeel yëf yi. non tey mu mu mu mu doon. est ce que nekkul aussi tamit benn instant que da ngeen di créer à chaque fois bad buzz. billaahi du loolu. parce que bu ñu leen gëjee dégg rek. soo leen jékki-jékki ba sàgg il faut ngeen indi benn buum indi benn bad buzz ñëpp di ci waxtaanee. non non bon waa li génn defaat benn excuse parce que non xam nga lu tax. non cette fois ci va pas sortir cette fois ci du génn. américain moo ne parce que tooñul kenn. Ah, non non non il faut pas dire ça. Ah, si mais kan lay baaloo ak lan lay baaloo benn groupe rek benn quelques personnes yu toog seen ordinateur di bind ak def leen neex pour après. mu doon polémique mais non quand même nañu wax ci mais ñun xam est-ce que xam nga y a une Sénégal ngay gis showbiz bi mi ngi metti les artistes mais ils galèrent kenn fekku leen ci jënduñu seede demuñu seen concert dañ leen di xas considéré wuñ leen faale wuñ leen sax ci ci doxalinu réew mi ñoom ñuy fexe di lijjanti di reyante ba ba ba am dara ñu ne du ko fi lekkee ci jàmm mais Sénégal waaye yow gaañ xam nga luy dëgg nañu wax ci lu jar a wax. artistes yi non dañuy galérer kenn fekku leen fi ñu ne ñu ngi ci seen milieu ñoom ñëpp ku ne doon ay gor doon ay xale yoo xamante ni mënoon nañ xaddi kenn fekku leen ci dara nit ki da nga koy taxawu boo ko taxawoo ba ba mu leer la ne taxawu nga ko bu deful lu dul yoon nga ne ko eh waroo koo def même bu fekkee ne Wally dafa def lu dul yoon nag eh Wally li tax nga sol t-shirt bi. ak loo ci jublu mais am fit gu doy ni toog fi nga toog di di di di di di con di créer ay coïncidence di di di wax ay wax yoo xamante ni. mais Youssou Youssou xam nga Sénégalais yi aussi on a l'habitude de dire que Sénégalais du du créer du sos dafay yokk. ay ma ne lii bam dañ ko sos lii di alal. waaw mais tey lii dafa nekk loo xamante ne dañ ko recherché gis ko. waaw mais xam nga moo tax gis xam mais mooy li ma la expliqué gis nga Amina xam nga weddu wuñu ne euh, couleur yi waali sol. ma wax naa bien bien bien j'ai bien dit que ni pride gay dañu dem adapter les couleurs de larc en def ko seen drapeau loolu loolu loolu ku ku ku dugg Google gis ko mais dama bi mu amee mais nañu xam ni dañu jël les couleurs de pride gay dugal ko ci les grandes marques lu ko dugal ci grande marque yi ñun xamuñu ko. mais Amina est-ce que est-ce que ce que xam nga ni euh, li am yoonu du du du du lu mu def du lu ñu préparé benn Wally organisé wul concert. non nekkatul ah, concert bi liggéey laa lay expliqué. staff buy liggéey lay liggéey ci lu mu organiser on organise quelque chose ok lan la ñuy def lan la ngay sol naka ngay demee naka ngay dikkee naka ngay duggee mais demeewul noonu. Wally devait jouer le 6 ñun suñu yoon nekkul ci programme RTS Coupe d'Afrique la Séné euh, RTS organisé fan zone fan zone bi ñuy sélectionné ay artistes yi ñuy joué. oui mais Youssou attends. non non artiste da am conseil en communication. conseil conseil en code vestimentaire. Ah. am aussi conseil technique. Ah, d'accord man yooyu laa lay wax. waaw ah, moom bu ñu lay conseillé dañ ci lu lu anormal. mais nit ñëw sol t-shirtam jënd t-shirt ana kan moo mën a taxaw rek ne euh, t-shirt bi non nañ xaar non lan nga non non problème amul waa ni solul solul yëre jigéen. solul yëre yëre yëre yoon naa la ne la Youssou problème bi nekkul bi. waaw fond bi Amina même bu dee fond bi dama nii pour nga conseiller nit ki day fekk ci li nga koy conseiller mu doon lu ñu lu ñu lu ñu préparé Amina. Sénégal moo joué ba pare waaye mu dem ba muy dem concert ba man concert ba laa dajeeg moom. Sénégal moo doon joué ñun ñëpp dañ doon seetaan match bi waaye li këram la seetaan match bi dafa des rek mu départ. ce serait plus simple qu'il vienne en maillot. tout à fait. mais couleur yi mu sol vert ngi ci rouge ngi ci jaune ngi ci. mais du couleur Sénégal. qu'importe. qu'importe. xam nga xam nga xam nga li ma yow mi ngi ñëw mooy. valable. boo ko soree coow lu jëm. non lu fa laa Sénégal booy joué huitième finale ah, qualifié na quart de finale. solal na Amina mais c'est pas forcément solal daaw waa le couleurs du Sénégal. coupe du monde daaw. coupe du monde daaw. coupe du monde bi Sénégal mujjee participer dugg leen seetaan ba xam waale mooy la solo te joué na concert bi ba mu jeex. qu'il porte les du Sénégal mais du force du force lii est-ce que du couleur yooyu faf faf faf dal fa mu dal. wuy ma couleur Sénégal ñëpp xam nañu ko Youssou mais mais couleur yi vert yi. Youssou yaa ngi foofu mais mais vert yi. mais couleur Sénégal kii yaa ngi foofu yaa ngi foofu. am na sama benn sama benn mag. Zoum Mbaye maa ngi koy nuyu de passage. bu ma ko Zoum dama ko Zoum coow am na de. Zoum Mbaye bu mot Zoum Mbaye bu mot. bu ko Zoum coow am na de dama doon xew. maanaam tiset bu waale sol mi ne ma waaw. ma ne ko mais tiset bi coow lu muy indi mënu ma wax ni mu toll. mi ne ma man dama def dama def na drapeau Sénégal rek. Mansour Gueye maa ngi koy nuyu sama xarit bi. barke Mouhamed ma daanu. mais waali nekkul ci benn safaan bu ko ñëpp di yedde yére la sol xale la man ba ma ba mais mais mais euh, Sénégal gi Waly indiwu fi peew indiwu fi yére bu bu bu xar. ay ah, peew ci moom la ko gisee indiwu ko fi barke indiwu ko fi indiwu xanaa dafa tombé rek. non non <laughs> nañ ma teg ci yoon <laughs> bi. waaw ñu ñaw nit ñi. waaw. nañ dellu ci faaru Mbaye Thiaye bi waaw ma téere sax. waaw ñu nañ dellu ci faaru Mbaye yàlla xam na ni. Ah. Amina. billahi wallahi taalaahi. bis bu Ali xëyoon ma ñu njort man man boobu man je m'engage man Youssou Dieng ma njort nii dafa ne ci dara lu lu lu lu dëppook loolu koroog la may nam ma barke Mouhamed. waale ñu waale ci woy rek day ñëw ni lii laay woy ñu ne ko doo ko woy albumu waale bi symphonie génn bërk Demba Ndiaye sénégalais yi bëggu ko mais di début à la fin waale du ci décidé dañuy waranteeg moom bë bër set léeg-léeg ñu pose deux heures de temps ñu ne nañ defar kafe lii laay woy non lii yow la dañu bëgg leneen mm-hmm. waale léeg-léeg buy génn ma ma taxaw ma nekk këram mais ok Ouzin kaay ma dugg ci néegam man ak moom ak jabaram ñu xool waale xam nga ne Amina ñu ngi góorgóorlu nañ waxante dëgg nit ki. ah oui on lu dul yoon non waxal mais bu buy góorgóorlu it wax ko nañ waxante dëgg. billaahi damay dem sax di ñawlul waale te du ko yëg pour rek parce que xam na ñii du du benn sàmba booy buy dox wala bu bu nit ñi di xaar. boo gisee sax léegi dañuy éviter sax muy solo solo yu bëri parce que bëgguñu sax ci biir ñu juum donc moom laa expliquer ne bu fekkee ne dafa juum mais ñu jàpp ne dafa juum mais non dafa mais mais ak wax ji fi ñu ko yóbbu la wax ji agul fi ñu yóbbu wax ji non dañ ko fay am na yëpp ku ma dégg naan dañ ko mun naa waat ne dañ ko fay. astaghfirullah fekkewoo fu ñuy waxaalee bay fay di am nga taxaw ci télé ni dañ ko fay dafa ne ci lobby xaalis bu muy am mais mais ana wërsëg ana wërsëg waali coon see kay bàyyam di li ñuy may waali ci seen dañ ko may coon see ñëpp a ngi koy gis ñu koy may ñëpp ngi gis ci télé bi waale buy way comme naka nuñ koy mayee mais li yàlla dogal na ci kenn mënu ci dara man bu ma bu fekkoon ne da lu may créer ci nit la ma defal ko sama bopp wala sama doom xaalis bi ñëw sama kër. bu boobaa du doon luñ may compal. du dëgg gis nga wax ji buñ ne ñëpp ne woon pacte kenn du xam drapeau bi drapeau lu mu doon léegi léegi fexe nañ ba drapeau bi senegal yi moom fu mu fu ñu gisati drapeau bi moom dinañ drapeau góor jigéen yaa nga bu doon dafa dem ci bitiku jigéen jënd ko nga ne moo ko tey mais ñi mu àndal ñi ngi fi Samuel Fall la àndal. ak su fi Koné dugg fut la ko Champs-Élysées jënd t-shirt bi match si Sénégal tas mu way pour mais ñu lay jaajëfal Youssou jërëjëf <laughs> voilà Youssou Dieng moom la dalaloon il nous a tout dit par rapport ak euh, polémique bi nga xamante ne moom moo am ci t-shirt Wally bi mais nag se nous daa nous xam nga waale waroon na ci safaan sax ñu ñu waruñu ko bandone bu nekkoon ci safaan sax waroon nañ ko bi booy warul demee nii booy yow lii nga léegi te ñuy wax na waale il représente quelque chose nanguwuñu ba léegi di <laughs> léegi moom <laughs> affaire bu doonee cor la ñuy wax oui lu muy représenté ah te s'il s'agit de de de de lui féliciter ñu ne mënul dara jigéen ñi rek ko bëgg xale yi rek ko bëgg <laughs> ah si s'il s'agit de ñu craché ko ñu ne oui dañ koy suivre non come on man nañu nangu Sénégal nañu xam nga mooy li may wax rek bu ñu tënk nañ yeewi ñu ñu dem ñu bokk ci ci joŋante àdduna bi. yeewu leen yeewu leen yeewu leen yeewu leen Sénégal yi wala ñu yeewente voilà ñu jaajëfal Youssou di leen jaajëfal internet enquête 221 point com lii lañ leen indi loon si suñu émission enquête sur di leen dig daje ci beneen dossier boo xam ne dañ ciy enquêté euh, jërëjëf